tey tey li waral ñu daje fii mooy dañoo bëgg suñu école yi nekk école yoo xamante ni day set ba pare sell ndaxte booy dajale ay nit ñu bare ci benn béréb daanaka set sellal du doy ndax loo def léegi masse bi dina tax salte bi gaaw fa te ñu am nag organisation boobu bi nga xamante ni benn structure la bu tudd p 2 nga xamante ni dañuy yëngu ci salubrité en milieu scolaire ñu ñëw jàpp proposé ñu partenariat boo xam ne day tax ñu xool nu ñuy fex ba suñu école yëpp set ba pare sell bi ñu commencé liggéey ñoom na gis nañ ci njariñ parce que dugg nañ suñu école yu bëri xool nan la la ñuy gérer set ak sell ci école bi ñu ko xoolee gis nañ ci école yoo xamante ni macha allah set na sell na gis nañ ci école yoo xamante ni tane na waaye gis nañ ci école yoo xamante ni boo ko gisee ni ñuy kiwi rek sa yaram dina daw parce que di nga ragal sax ci sécurité xale yi. bi ñu gisee loolu nag def nañ ñoom ay rapport envoyé ko inspection ñun aussi contacté nañu yenn école yi nga xamante ni gis nañu dafa euh, jégg dayoo ba ñoom ñi ngi jël ay mesures pour régler ko te li intéressant ci p 2 mooy dañ leen di accompagner ñoom ñoo leen di accompagner jàngal leen nu ñuy nettoyer ñoo leen di accompagner jox leen yan produit la ñuy nettoyer ñoo leen di accompagner wax leen yan produit la ñuy utiliser yan la ñu war a utiliser ba pare même ci produit yi dañ leen koy may donc fi mu nekk nii loolu vraiment xewal la ci école yi pour que ñu setal école yi sellal école yi ndax biir école buntu école dafa war a set dafa war a sell xale yi fay foowee war nañu xam nañ lañ koy gérer ñi fay jaay aussi am nañ ci rôle pour mu set sell cour école bi xale yi di foowee aussi am na nu ñu ko war gere gérer pour mu sell biir classe yi aussi am na nu ñu ko war a gérer toilette yi am nañ ko gere direction am na ñu ko war gere te aussi bu ci nekk niñ ko tabaxee dafa am solo ci niñ koy setalee. ki nga xamante ni ay karo la yam bokk la ki nga xamante dër la am ki nga xamante ni dër la am bokk la cour bi nga xamante ni suuf la am donc yooyu yëpp ay technique la yoo xamante ni ñi nga xamante ni ñoom lañ ko sant fi mu nekk ñu koy def ci école yi ñu ci bari kenn formé wu leen ci loolu dañ leen recruter ren ne la yow dañ laa yóbbu ci école nangam yaa yor set bi moom mu ñëw nag li mu daan def ci këram rek ak li mu xam loolu lay def alors que loolu métier la moo tax. boo xam ni. vraiment dafa ñëw ci waxtu bi mu war a ñëwee parce que président bi dafa lancer benn slogan sur euh, euh, le clean day clean day pratiquement ñun ñëpp on a constaté que ni le pays ne va pas vraiment très bien en matière d'insalubrité parce que boo xoolee boo xoolee dëkk bi ñàkk na set te set boobu dafa dem ba ci yeneen structures yi comme ay école ak yooyu parce que li de rassemblement public yi moo tax tey jii ñu ñëw fii ah, di ànd ak waa PDS pour les jàppale leen di renforcer seen relais yi si en matière de technique de bionettoyage technique de boo ko déggee dafa mel dafa nekk technique boo xam ni ci la ñuy mën a euh, nettoyer les surfaces yi nga xam ni euh, si euh, les les alentours de l'école la la les cours de la cour de l'école aussi ak Euh, bloc sanitaire yi te bloc sanitaire yi en général dañu constater que ni au niveau des écoles dañ ko bàyyi ak ay xale xale yi di ko nettoyer te xale yooyu war ñu ko nettoyer trop pratiquement dañu waroon recruter au niveau de chaque structure classe bu école bu nekk benn nit ko benn mag mu koy mu koy def wala soit ñaar wala ñett mu am benn équipe comme ni ñu koy defee au niveau des structures hospitalières.